yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara jiital ci nuyoo bi a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu boroom mu yàgg fi loolu tànd ko wér ñu ngi ziyaare Serigne Basiru Mbàkke moom Serigne Habibu ak mbooleem jabatug Serigne Habibu gépp waaye di ziyaare Serigne Habibullahi moom Cheikh Mouhamadul Fadil ak sëriñ tàkku ak sëriñ Abdul Ahad ak mbooleem ñi ñu seqal liggéey bi sëriñ Abdul Fatah ak mbooleem ñu bokkal Touba ci kanam waaye di siyaare suñu bàjjan soxna Bintu Mbàkke mu seex Habibullahi di ko ñaanal suñu boroom ku defal ko ndam ci liggéey bi mbokk yi kàddu yu gàtt lay doon kàddu yu soññe yoo xam ne day jëm ci suñu liggéey bu tedd bi di Touba ci kanam di liggéey boo xam ne maa ngi sant bu baax ak gërëm sama jigéen bu baax bi fi jóge léegi di soxna Faat Ja di ko ñaanal suñ borom sàmm ko te aar ko te yokk xam-xamam di liggéey bu am solo boo xam ne bu ñuy wax infaaq fi sabilillahi dañuy wax ne dara jiituwu ko ci al infaaq fi sabilillahi nag day lu am solo ci lislaam Abdullah ibnu Abbas dafa waxoon ne ñetti mbir a ngi nii ñett yi ko suñ borom di ko lënkaleel moo wane soloom bi ci jiitu mooy al infaq ndax as sola la ko suñ borom di lëkkaleel yuqimuuna solaata mimma razaqnahum yunfiquun tey wane infaq importance bi mu am ñaareel bi mooy ar rasul allah wa rasul wa man yutihi allah wa rasula suñ borom fu mu tëddee boppam yonante bi la ci teg ñetteel bi mooy alwalidayni suñ borom boo xam ne waqadi rabbuka ala taabudu illa iyyahu bil walidayni day wane importance su ñaari way jur bu tuddee yàlla teg ci yonente bi day wane solos yonente bi bu tuddee julli teg ci infaaq day wane solos infaaq bu tuddee jaamu ko teg ci topp ñaari wajur day wane importance topp ñaari wajur mbokk yi infaaq li ci suñ borom tabaaraka wa taala gisuñu leneen loo xam ne saa borom tabaaraka wa taala dina ko fayee noona ci moom képp lañ gis saa borom tàllal loxoom ne lebal leen ma bol bu rafet ma fay leen man da alladi yuqridu llaha qardan xasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah tajiduhu inda allahi ajra suñ boroom nee na lebal leen yàlla bor bu rafet lépp lu ngeen jiital ngir yàlla da ko fekk fa moom te moom kat huwa xayran wa axsama ajra moo gën a baax moo daq fay waxaat ne fa yudaa'ifu lahu ad'aafan kasiira saa borom du koy ful di ko ful ba mu bari wutalu ko ab lim waxaat ne léegi ne benn pepp moom ngay ji mu doon juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub yooyee gub bu nekk am téeméeri pepp daan ne yàlla sax moo xam nag na mu koy fule yàlla moo ko xam damay wax ne infaaq góor yàlla yu baree baree bari am nañ ci suñ boroom loo xam ne julli mayu leen ko kooru mayu leen ko joxe seen alal ci yoon yàlla ba leen ko may dinaa ci tànn Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu sëriñ bi nee na ci téeram boobu raaya nee na Usmaan dafa financé jaysul uzra yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa woote ne kan mooy def sa alal ci xare bii ma woote saxaaba yi di joxe Usmaan ne joxe naa téeméeri giléem muy soññeewaat Usmaan ne joxe waat naa téeméeri giléem mu soññeewaat Ousmane da jeexawaat naa téeméeri giréem yonente bi da koo wax ne ko mënatoo def lu naqari yàlla ginnaaw sa jëf ji mënatoo def lu naqari yàlla ginnaaw sa jëf ji mooy yàlla da ko mbaa yàlla ngir jëfam joo xam ne def na ko ci yoonu yàlla moom la sëñ bi di nett il naan baatan nabi ila fajrin yarumu lahu ridan min allahi za tafdilu kubbaaru nee yonte bi daa fanaane bu bët sat di ko ñaanal ba mu xëyee wa fii qaala nabi usmaanu yashfau fii sabiina alfan wa kullun xaqahu naaru ba sëñ bi xëyee mu ne Ousmane ëllëg yowmal xiyaam dina ramm juróom-ñaari fukki junni nit ñoo xam ne sawara lañ waroon a dem Ousmane dina leen ramm lu mu ko amee joxe alalem ci yoonu yàlla joxe alal ci yoonu yàlla la sëñ bi wax ne ëllëg yowmal xiyaam buñ jëlee siraat gàcce ko ci kaw jahannama nit ñëpp tiit bay lox ku nekk naan fu ma jëm dinañ dégg baat bu woote ca kaw ni ana ñi daa liggéeyal jullit ñi ñu ne ko noo ngi nii mu ne yéen jaar leen nii dem tàbbi seen i kër du ngeen bokk ci coona bi du ngeen bokk ci fitna ji moom lay waxee ne waqila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaabal xumma naada munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaabu ajmain fa yumaruna lil jinaani musriin bi ay yuqaala lahum mumdul janna bi xayri miknatin wa xayri fitna kon infaaq fi sabilillahi loolu mu ne su ko am ci jënn jëf judul loolu sëriñ bi xamaloon nañu ne boo bëggee xam ndax yow ku jege àjjana nga am déet bëgg xam ndax ku jege yàlla nga am déet bëgg xam ku jege nit ñi nga am déet deel xool ndax yaa ngi def sa alal ci yoonu yàlla am déet as-saqiy la waxoon nee na aji tabe xaribun min allahi xaribun min annaasi xaribun min aljannati ba'idun anin nar nee na ki joxe alal ci yoon yàlla day ku jege yàlla waaye ku jege nit ñi la waaye ku jege aljana la waaye ko sori sawara la joxe sa alal ci yoon yàlla nag dafa baax fépp waaye dafa gëne ci sëriñ bi lu ko waral moom day daa waxoon ne daa waxoon ne moom sëriñ bi ñi koy liggéeyal seeni kër ca digg aljana la ñu nekk duñ nekk sax ca tefesu aljanna wala wetu aljanna inna allazina saarau fi xidmati fa lahumu diyaara wastal jannati daa waxoon suñ borom ne ko ñi may liggéeyal na seeni aajo te lépp luñ sàkku na leen ko defal waqdi xawaaij alladina daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu waaye daa waxoon ne barakatun bi bi nayli xayri nicma tunsil muridina ana alxidma nee na barke bi nga xam ne mooy fàtteloo murit bi maanaam mooy mooy indil murit bi ngeen di xéewal ëllëg yoom a xiyaam moo koy fàtteloo jëf ji mu doon jëf ak coono bi mu doon am ci àdduna bi mu may jëfal moom sëriñ bi jëfal ko fépp baax na waaye jëfale ko ci dëkk bu sell bii da ci gën ndax day dëkk boo xam ne daa wax ne saa boroom tuubaa góor yàlla yi dañ ko doon xëccoo ñépp di ko jëkkante saaboroom ne ko tànnal ci góor yàlla yi koy àndal mu ne tànn naa ahmadul xaddim moom lay àndal moo tax sëñ bi bëggoon ko bëgg goo xam ne ci ay mbindam ak ci ay waxam ak ci ay jëfam lépp day wone bëgg gum bëgg Touba yaakaar naa bi mu nekkee ci géej gi ku ne dégg na mu naan ilaahi ilaa Touba yaqudni wasalliman yow saa borom moom man ma jëmale ma Touba lu baree baree bari wax na ko suñ du ko ñaan suñ bon tabaraka wa taala rabbi stajib wal tukammil maa nawaytu ladaa tuba allati bika tubna fiika bunyaana bëgg mbëggum tubaa tax na bi mu nekkee njaareem ku masaa bëgg mu bëgg sax da ngay tudd turu tubaa mag ji buñ bëggaa bëggaa gis maanaam réew muñuk sëriñ bi buñ jàppoo dara dañ daan nu jëm wetuk tuubaa nga gis mu daal li muñ ku ko masaa tàggu ne ko tubaa laa jëm dalay joxub yóbbal ba noppi bëgg ci yow lool tànnoon ñi ko fi dëkkal itam ñaanoon boroomam li mu ci dëkk bi ñépp gis Matlabul Fawzayni lépp loo xam ne mu jël ko jébbal Tuubaa boroomam tabaaraka wa taala ndax lan yàllaa ko ko tànnal waaye bi koy sanc da koo sanc ngir yàlla ndax dafa wax ci adduhaa'ul kabir ne ko allahumma innaka xutta zimaami ila al ardi allazi ixtartaha lii wa banaytu fiha daarayni daara wa tuuba li abudaka fiihima bil imaani wa bil islaami wa bil ihsaani yow saa boroom yaa wommat sama nos jëmali ma ci dëkk boo xam ne yaa ma ko tànnal ma defar fa ñaari kër muy daaru salaam ak tuubaa lenn dong laa fa yéene nag mooy jaamal la fa ci liimaan ak islaam ak ihsaan dëkk boo xam ne neen li tax bëgg ko mooy sanc ko ngir dabu moomeelu ay maamam sanc ko ngir wut fu neex a baye sanc ko ngir wut fu neex a sàmme da koo sanc ngir jaamu yàlla moo taxoon mu bëgg Tuubaa lool lam ñaan boroomam nag soxna Faat Ja turandoo soxna Faat Ja mi waxtaan léegi daaw nee na ba ma toggalee sëñ bi laa xam boobee jox ko sëñ bi sëpp ñaari baaraamam yi barkeelu dane ma Faatima lépp lu ngeen gis ma ñaan ko bind ko ci sama mbind mii xam leen ne am na ba noppi jël ca wenn bayit muy zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil mustafa tajtahidu ne ko waaye ku bëgg ñaan ngi nangoo ci yow nag yaa koy gàttandul sa bopp kon li ñu bind ci Matlabul Fawzayni lépp lu am ba noppi la tawféex jalay may nga bokk ci ña koy sottal nag loola moo jar a te leen dogg koy maye muy bokk ci Touba ci kanam lañ lay laaj muy ñaari téeméer weer wu jot yëgal ne ñaari téeméer yoo joxe ci tuubaa ca kanam saa borom tabaaraka wa taala fulal na la ko muy ñaari junni gën ngaa tuuti ndax moo waxoon ne man jaa bil hasanati falahu am amsaaliha koo xam ne jaf nga benn bu rafet moo fulal la ko junni yoon waaye itam moo waxoon ne mën na la ko fulal ba juróom ñaar téeméeri yoon te yàlla moo xam na mi fule ndax moom ku tedd la ku màgg la buy jëf na jëmmam ja tollu na lay jëfe kon mbir la moo xam ne kenn waratu ca soññ kenn bu fekkoon njariñu àdduna ak àllaaxira yi ma tudd rek moo ci nekk waaye njariñ la loo xam ne lu teew la ñëpp di ko gis amul ci nun koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te jëriñu woo ci ci kanam benn leeral nañ say bedd defal nañ la fooy fajoo defal nañ la daari alquran yooyu jàngale tàmbalee sama jos defal nañ la xëccal nañ la ndox ak courant defaral nañ la assainissement ba fi daan taa gisatoo taawatut defal nañ social bi ñu ngi ciy dimbale ñu tawat ñi ñu ñàkk ñi événement yi lépp ciy teg suñu bët kon bu dutoon liñ ci dikk ci àllaaxira sax njariñ li ñu amal ci àdduna jar nañu góorgóorlu ci kon képp koo xam ne yaa ngi ci woon nañ ci gën a xaar sa tànk tubéy boo ci daan def benn nga yokk mooy fukk képp koo xam ne bokkoo ci woon na nga xam ne yaa ngi tardé taggaal gaa ngi dem te xaaru kenn la sëñ Bass Abdou Khadre waxoon nag moo fi nekk gaal ak sëñ Tuubaa gi day dem kenn mënu koo téye te ku taxaw ci kanam mu jaar ci sa kanam ci sa kaw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu